ولي منار الدين أعلى عرفة إنارة عمت عموم محمدي كن ومن لي تاذين يربي مريدو بلا قلوتين بل همة مثل أحمد ومن لي بإخراج الحقائق ناسعا ومن لي بتدراس الكتاب ومسند ومن لي ببذل الفقه والنحو منطق بيان معاني بديع بمسعد ومن لي بورش بل جنيد ولا شعر ومن لي bi biadabin wa darbin muaddadi wa man lii mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant waaye tey ñu am contentement loolu di leen jox seen wàccuwaay waaye it di leen sant di leen gërëm bisu tay ji waaye ci bir lol it maa ngi leen di jàllee khalifa yi nga xamni ño fi jotté a ñu commencé ko ci khalif général de tijane muy serigne Abdou Aziz Al Amin bi nga xamni mo fi jóge bu yagul ñu di leen ko jale di leen ko masawu jumna sax ndax serigne Cheikh mo fi ñëk a te yow yaakaar naa ni toujours ci sa barke turandoo rek ngay demee Serigne Cheikh kon maa ngi la koy jaale waaye mel ni que bu ma la jaalee Serigne Abdou Aziz sax mel ni que jaale naa la Serigne Cheikh ndax lañu rawantee bariwul te benn lañu di leen jaale it suñu xalifa bu baax bi fi jógee bu yàgg muy Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke ñu di leen ko jaale di jaale it Serigne Abdou Aziz Ndiéguène bi fi joge bu yagul ba ci bay Khalifa gay mi fi joge bu yagul it ñu leen koy jàllee ta adina nak ni la ci dund la bok waye it may gërëm ñi nga xamni ño fi tok tay ji yépp di leen sant di leen gërëm di feddiliwaat sama kolere ci diggante sama xarit sama frère muy laasane mi toog muy nit ku ñàkk ki ñan foo ko rek passé na ko ah man de wax dëgg yàlla sama xarit la xarit nag mënoo wax wax wax wax ba gis lu ko raw sama xarit la ça fait presque deux mois ba ngeen ko tàmbalee waxtaane ci la ma ko wax ma ne ko pare naa li mu ma woo ci téléphone kenn xamul nu mu toll billahi wallahi taalaahi li mu ma envoyé message kenn xamul nu mu toll li mu may rappelé bis bi kenn xamul nu mu toll ma xam ni bis bi bis la boo xam ne daf ko ñor te moom xam na fi ma toll ndax yaakaar naa ni 17 ans ma nekk ko Thiès di jaabante diggante cees Tivaouane boobu dara xewul damay dem jëli oto dam julli ji Tivaouane wala ma taxaw fii génn deux heures mooy jot ndax Tivaouane deux heures et quart la ñuy julli man fii laa koy natt deux heures nit ñi di dem ma jël sama taxi gaari ko ne Tivaouane laa jëm dem julli ji taxi bi xaar ma ñi ñëwaat ba tey ji taxi yu bari tey ñoo moomoon seen bopp taxi te waxoon naa la ne leen yóbbu bi ngeen ma yóbbu tuyaan may julli ji dina dem ba ngeen am seen taxi bopp ba tey ku ma ci romb mu ne ma cent waa jaa ngi ne kon dara du hasard te temps boobu yëpp maa ngi ko nekk chef Sidi Mouhamadou Mansour borom daara ji waaye nag kenn xamu ko woon su ma daan dem gars yi dañuy nëbbatu dama leen di nëbbatu léeg-léeg ma ne gaa yi kaale ñu ànd waaye xëy na it ay fo lañ ko def waaye man may root sama rootu bopp rek kon ah tey ñëw na mooy fay baa ngi nii lu ne sëñ Mansour defal na ma ko amul lu ma sëriñ Mansour defal billaahi wallaahi taalaahi xam nga télévision moomu tiim tey ku ko seetaan Tiwaawan ci kër gi dinañu xam ni li ma wax dëgg la bu ngeen weddee ngeen laaj sëñ Asan Si bu ngeen wedduwaatee ngeen laaj sëñ Moustapha Si magu Asan Si ba sëñ Mansour bu muy mujjee génn àddina mi ngi ma recevoir ci ëtt foofu ñu ko rob foofu la ma recevoir te dañ ma woo ba ma ñëw Omar jo ba ma woo ba ma ñëw mu recevoir ma foofu te boobu xaw moo ni foofu lañ koy rob waaye mi ngi jël déplacer lal ya ma ngay déplacer bagage ya ma ngay déplacer fauteuil ya toog ci pliant bi keroog ci àll nekk bu ngeen demee kër sëñ Mansour yëpp lu ngeen fa fekk ci photo yu mel nii rek maa ko ko jox këram yëpp maa ko jox amul benn gardien boo xam ne joxuma ko téléphone te lépp moo ma ko exigé te bi muy mujjee dund dafa échanger jenteng man montre te montre ba bas mo dem ba ci soxna Farsi tam jëli ko mu ne ko montre bima xam mom la ko denk bi su guddi nama, ma ko jox te bobu daf ma sas ne ma indil ma ñaari photo bima ma ak seigne babakar bima ak sam papa ma sam papa jitu ma top ci ginnaw sol manto yi mom la bëgg nga indi ma ci ñaar suba nak la wax ah, papa loli yemi di. jugal acca demal ma jug di dem ba mu yàgg may dem mu ni ma eh xalifa ma ne ko labbay kasi mu ni ma kaay ma ñëw mu ni ma toogal ma toog di ko indi suba wala ko indi suba ma ne ko kay incha mu ni ma billahi lazi boo ko indi lu suba loo gis man la dinaa la woon ni may xalif général des Tidianes barki yonent bi ngir mu yéeme nag lay wax fekk maa ngi ànd ak benn xale xale bi moo téye samay dal ñu dem ba mu yàgg mu ni may ni sa montre ma jox ko sama montre ci la échanger te man montre bas dem jëli montre ma takal ma ma takal ko ma dem ma ñëw indi ko woo ko jot Omar Diop mu ni ma nekkoon na ma fekk sama kër ga nekk Mboro ben bi mboro la ko yobbu waye ben bi man ko yobbu euh, almadi ben mo yobbu ko almadi fekk jallu ben gardien bi nan jallu mo fa nek ma jël photo bi yobul ko jallu jox ko ma woo ko mun ma benen bi dama bëgg nga fekk man sama kër mboro nek bi nga xamni mom la tuddé Cheikh Umar Foutiou foofu la koy bay fekk gor ngi hmm. bu gatt bi ma ci laa xam ne la ma doon daw ci 17 yi di daw di dem Tivaouane keroog la ma ko fay dama ne ko papa dama bëgg nga ñaanal ma tey yaay ñaanal sa bopp ma tàll samay loxo ma gëmal <laughs> bokkul la kenn moo tax bis bi ki ngeen ko tuddee moo tax sax may wax loolu. waaye mosuma toog di commentaire ci waxu sëñ Mansour déedéet mosul am fu ma koy defee rek du ma ko def ci télévision waaye ci biir ruq rek laa koy defee ndax xam naa li mu doon ci man xam naa li mu doon ci man te ku ne nag am nga sa sëriñ te ku nekk sa sëriñ nag xam nga li mu doon ci yow waaye man xam naa li sëñ Mansour doon ci man gannaaw yàlla yonent bi samay woy jur lu ma am tey moom la billaahi lazi luma am tay ji ci barkem la ko amé motax ragaluma président man ragaluma ah, ragaluma kon dañuy doli sant yàlla mm-hmm. Mm-hmm. te dir bobu ma nek ak mom yep mi ngi nek ak dudu ken bay di bigal mm-hmm. xam nga yeen da ngeen def sax erreur erreur bu rëy ngeen def bu événement bi passé ngeen di xam ne da ngeen def erreur léegi yéen ren yéen a ngi ne yéen ko def Thiès mais déwén da am yeneen dëkk yi war a aaye <laughs> waaw Thiès rek moomu ñu dudd kenn mbay dudd kenn mbay amul kenn ci àddina koo xam ne bégalu la waa bitim réew ñoo leen gën a bëgg dudd kenn mbay yéen xam leen seen bopp rek waaye ñoo xam ne dañuy xëccoo dut kenn mbay su ñëwul sax foog nañ seen programme neexul su ñëwul foog nañ seen programme neexul kenn rek laa xam ni moom moom léegi moom bu ma yeboon la moo dee ci xol mooy sëriñu sëriñ si mi ngi di toog kii rek laa xam ni moom ah. <laughs> بنجم في النجوم وموسل نانكو سيد الحاج مالك يا مصل صولا نانكو سيد الحاج مالك يا مصل عرودا نانكو نجول فاما يا مصل سيرة البدر مقود وملي منصور سنتالي يالا چنت گو ñepp xam e ku sop serigne mansour defal ni Lolo ini jaadu defal bidu nitawani, ni tawani mansuru santal yalla cant gu ñépp xam lolo ili jaadu defal bi du ni tawani nit ñangi lay santal ilaha ka daayiman ndax le mu doli la may bila nuksani jappal ci li mala wax nga gem ko te def ko muy gànnaay ci yow tan joomi na seytaani nit ñaa ngi lay santal ilaaha ka daayiman ndax lee mu dol li la may bila nuqsaani nit ñaa ngi lay santal ilaaha ka daayiman ndax lee mu dol li la may bila nuqsaani moo tax sa turandoo borom bone kaare bi amul morom faju aajo gaaw na fa mbay tiisu dàqu gaaw na fa mbay laaj ko gaaya daan dikke mbay fii ci biir Tiwaawoon moo tax kii sama benn wëllëre la ma nga dëkk ca Joal boo tuddee Serigne Babacar Sy day daanu ma ni ko lu tax mu ni ma daa am benn bis ma ànd samay moroom ñu war a dem biir géej ne bi ba ci tefes gi benn waay romb ma di jaay ay t-shirt nee ma jënd ca boo xam ni photo Serigne Babacar Sy ca nekk nee ma sol ko ànd ak samay moroom ñu war a dem biir géej ne soixante personnes lañu woon juróom benn fukki nit ne bin demee ba ci biir géej gi suñu gaal gi jékki-jékki daal di toj nee ñi ma àndaloon ñëpp ku feey ba sonn rek lab faatu ku feey ba sonn rek lab faatu nee jaax jaaxle lool sama xel ni lapp ci Serigne Babacar borom bone kaar bi nee ma def ni t-shirt bi ma soloon futa Serigne Babacar bi ni ma jàkk di ma xool ma ni ko yow Serigne Babacar si yaa ni woon ba rusuloon maam Maodo ku la woo foto nga wuy ko ginnaaw yàlla fi ma toll yow dong laa fi yaakaar ndax may sama taawu yaay bu góor nee ma jékki digg benn baat di wax ak man ci biir géej gi ni ma dut njaay dëggal ne wax ma ko ñetti yoon ne gemme ma ngi sentir ben jëm sama gannaaw ne mu buux ma bi ma buuxee ni ma xeppil ne ma ngi xeppee ci tefes gi ci barki serigne Babacar Si sa trondo kon limay wax ak ni kon koku bisam du bis bu tuti bisu adina bi la ndax dem neena alaaji duuti kenn mbay ku ne mi ngi lay bëggal boo amee stress sax nga jël teg kasetam mu bégal la sa stress dem ci àddina su àjjuma jotee nit ñëpp taamu nañu di déglu alxuraan wala ñuy déglu ay jàng waaye amul kenn ku dee ci xolu nit ñi ku dul alaaji duuti kenn mbay moo tax li ko yàlla defal dama yaakaar ni moom rek moo ko am ndax neena bayam mi ngi fi woon muy alaaji mbay donde mbay nekkoon nak serigne cheikh amadou tidiane jóge fa di ànd ak cheikh seydi mouhamadul mansour ñuy dem ak di dikk borom ma dem ak borom ma dikk ak borom sa maam neena ba mu yàgg mu xëy jóge fi tey jii alaaji dut kenn mbay ñëw kotuwaaye ko nekk ci wetu borom daara ji di bëggal borom daara ji man mësna tok ben bis seigne Mansour ci bopam kérok maa ngi fa fekk momo ak maoudou touri euh, safrullah xaaju maoudou Sow mu gis nga bu ngeen gisee Mansour bu seigne Moustapha Jamil raw gay sa yu tukkee ba ñew dama koy fat nan jox ma tiabi ne sama bir néegu lay juggu ma jox ko sama xasida yi sama papa bind mu diko ko ak yi sama mam bind mu ni ma tax mu raw gay mu ni mën a ni koku mel ni Mansour Moustapha mel la bëgg mom mu mel ko ba romb ko waye nak day jafé mako tok mako deglu mu diko wax ma diko deg kon ku mel ni kooku magni ji xam nga ni mag ñi defal nañ ko mu wacc ñewati ci serigne Abdou Aziz Al Amin nek ak mom di ak mom, di ak mom ba koku tay ji genn adina tay ngeen ñew amul lu ngeen def ngeen ne da ngeen jël initiative pour sargal alaaji duuti kenn mbay kon loolu Senegal ngeen ko defal àddina ngeen ko defal yen ñi nga xam sax ko def ku ci nekk loxoom war na ci dugg asamaak waa sénégal asamaak autorité yi asamaak jullit yi duudu ñëpp ko naw kon kuy autorité kuy nitu diine ba ko dul niti diine kuy koo xam ni muy homme de politique nga ñàkk homme de politique nga nekk nit koo xam ni nitu da nga bokk ci daayira daayira yi association yi mouvement yi amul kenn koo xam ni alaaji dudd kenn mbay dina la sas wala mu daan la jox ma wala nga soxla ko nga bañ ko am lu mu xat-xat dina fa jaar ñëw kon kooku ñuy bégal tey kooku ñëpp ko war a bégal te ñëpp ci war a dugal seen loxo ndax kat duudu li mu am kat macha allah yàlla ko ko jox comme yàlla ko jox nag ñu ñëpp nañu àndandoo muy le 18 bi ñu dem ca place de France ñu fas yéene fa teel a dem teel ko sargali ndax kat sargal ko kat sargal nga sëriñ Babacar si sargal ko kat sargal nga Cheikh Ahmed al Tijane si al waaye sargal ko it sargal nga borom daara ji sargal ko it sargal nga sëriñ Abdoulaye Sy Al Amine waye sargal ko it sargal nga sëñ mbay si masu mi khalifa bi yal nako fi yalla bay kon dudu dudu ñepp la ma ngi ñaan kuy julit ak kep ko xamni ne ngi bi bi waaye rawatina ki nga xamni mom moy sama directeur général de la poste monsieur pap Siré ndax nak koku mom ngeen ko defal mom ngeen ko defal ndax man dama jokk ci mom kaddu yi may jup yep dama ko jël yëkkati ko mu nekk ay kàddoom ndax tey bu fekkoon ne mi ngi fi ah mënul weesu kàddu yi ma ko wax yi ma wax nii gëm naa ni buy romb dina xew a romb tuuti waaye ah gëm naa ni du manqué ci li ma ko waxal ndax moom yaakaar naa ni ni yëfu sëñ Abdou Aziz Sy Al Amine la woon ba mu xëy tey ji jóge fi kon maa ngi wax ci kàddoom moom moom ci boppam nekk fii dafa voyager waaye mu ngi ñuy seetaan. Setan bu mu ñi setan nak insha allah taala dina ko deg te it dina ci def li nga xamni moko ci war dina ci def limu man rawati na nak comme nek fi te man ma fi nek manit warna meuna jël initiative aussi pour def ci li nga xamni mom la ci wara def ba mom mu ñew def ci lu mu ci wara def ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waye dal Cheikh Madal tijan mang leen di sante mang leen di gërëm président maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm soxna yu baax yit maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm di sant waa Grand Thiès ñoom ñëpp ñu ngi nii toog waaye di sant sama xarit bee muy mbay Fall moom it mi ngi ne toog boobu ba léegi mooy mi ngi ñëw toog di leen xaar di sant Thiès yëpp di leen wax ne leen daal ñun daal sunu sunu mbébét mooy ah mbir mi daal mu avancé jëm kanam may jël nag awol bi président fas yéene ko jox la ko. bu ko defee ñu mën ci tàmbale incha allahu taala li ci des nag ñun xam nañ nuñ koy mottale comme le 18 la des na une semaine balaa une semaine bi dinañu xool nu ñu war a sargalee ndax sargal moom yamul fii waaw ah xaj na fu ne kon maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di ñaanal yàlla it yàlla na yàlla suturaal leen ba bu déwee ne it yàlla na ngeen ko doxalee comme ni ngeen ko doxalee nii mu dàq nag te ngeen nag yóbbu ko beneen dëkk ndax dëkk bu ngeen ko yóbbu yaakaar naa ni waaye na tuyaawoon mujjee daal <laughs> na mujje ba Touba sax xaj na fa waaw amul benn dëkk kilifa diine booy dem di sargal Doudou kenn mbay te yaakaar naa ni ñoom duñ fa ëpp Doudou kenn Mbaye murid yi ñoo leen ko gën a bëgg wallaahi laasim barki yonent bi murid yi ñoo ñu gën a bëgg Doudou kenn Mbaye ndax pas-pasam duudu pas-pas la am duudu duggul ci dara duudu nitu yàlla la duudu nit la koo xam ni euh, mi ngi noonu daal loo wax rek ah président loo wax rek macha allah daal Cheikh jërëjëf kàddu yi rafet na. tey nag euh, jataay bi ñun ñoo ko sàkk woon muy ñun bu ma nee ñun rek mooy coordination nationale wala sax internationale parce que am nañ ay membres yu fi yu nekk ci diaspora bi. Euh, des soppé de alhaji doudou kenn mbay ñu ñëwoon tay fi ci ties euh pour set ci suñu mbokk talibé di kenn wala nekkon kenn ci serigne mansour si radiyallahu ta'ala anu mi babakar diallo ah bañ ko wowe nak wax deug fa yalla dafa rafetlu mbir mi parce que ñu ngi ci discuter temps yépp mak mom rafetlu ko ne moom moo ko moom la waroon mu def ko far ñun ñii di ko def di ay rakkam bëggoon na daal ñu ñëw këram te sa ñi nga xamante ni ñoom lay àndal ah mu wax ñu rekk bis bi ni mu toll ci moom tey looloo taxoon ñu ni nañ def déplacement ñëw fekk si ko fii ci cees di la masawu ci heure bi ñu yegg si di la wu tamit ci dérangement bi parce que ñëw fii toog wax dëgg fa yàlla nga bàyyi seete yëpp te xam nañ say activité ah ak sa mbokk yi nga xamante ni ñoo teew ñu bàyyi seen yitte ñëw toog ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax xam naa rek dañuy wax rek ñu ngi ànd ak suñu mbokk bu ñu waxee Pape Sylla muy président coordination bi day yóbbaale ñëpp géew bu ñu waxee président mu yóbbaale ñëpp géew muy soxna nday Puy ak ki nga xamante ni kenn la ci ñun ñu ànd ak moom muy Cheikh Tidiane mbay wax dëgg fa yàlla nekk rakk dudu kenn Mbaye ah kon nag bu ko defee rek ñu ñu sant leen bu baax a baax ci loolu ah Cheikh nag moom kenn la ci ñun duudu lañ àndaloon di ñëw waaye daf yàlla dafa dogal mu jàdd euh, kër Pa Khalifa Gaye di am jaale bu mu fa war a def kon bu ko defee rek Babacar nañuy bàyyeek président wala Cheikh Tidiane wala ñu jox euh, Cheikh Tidiane après ñu jox président euh, ñu wax la rek yittey bis bi ak soloy bis bi suñu paree nag. am na tamit luñ ci dolli parce que mun nañ ko wax sax benn yoon mu jeex mu ngi nii mag moom mun naa ko seede ci mbooloo mi ñun bokk ñu parti politique ñoo bokk nag sëñ Babacar Si mais bokkuñu ñu parti politique waaye kenn mënul xam mag moom fan nañ bokk lu mu xew xewle damay ñëw wax ma bu laaj ma sama xalaat ma wax ko ci wala mu ni ma laas lii ak lii ak lii dama koy def demal nga defar ma ko ba ci organisation bi mujjee def fii quatre invitation ya fa am yëpp maa ko defar ci moom ni mu ko bëggee rek maa ne comme yow moom taal suñu Mansour nga en plus nga def ñu mag loo bëgg dañ ci nekk mu nekk di politique bokkuñu ñu waaye muy ànd ak Pape Siré Dia nekk ci jàmbaar dañ ciy wax muy ànd ak moom nekk ci jàmbaar ah ñu gis sa taxawaay tamit ci wetam nu mu rafetee ci Thiès ah nag loolu tamit ñu seede ko mbooloo mi parce que wax sa mbaax waaye du wàññi sa mbaax dara ah loolu ñu seddal ko ñëpp fii man damay politique nekk parti réew mi moom mu nekk APR mais fu mu xewlee dinaa ci teew Cheikh Lo maag moom bokk parti adjoint maire dina ci teew ak ñeneen ak ñeneen loolu nag yàlla ak sa mbaax la ak sa nekk nit parce que ni ñuy gisee moom mooy bu politique amee rek gars yi dañoo yaakaar ni chaque jour rek man damaa war a saagal Babacar Babacar saaga ma bu boobaa jataay yi du am wax dëgg fa yàlla mu ngi rafetal ci ñuy rafetal ci Thiès ci la bokk loolu dafa am solo pour ñu wax mbooloom yëpp ñu dégg ko te ku xew la ci Thiès loxoom dugg ca muy sport muy éducation parce que fii la woo Grand Thiès wala Thiès yëpp fii nii. mun naa ne li fi nekkoon ci ay nit ëpp na 500 personnes di joxe ay fourniture scolaire di ko def ci ay ndogu di ko def ci yeneen ak yeneen kon bu ñu woowee tey ñu ñëw toog fii di waajal sargal duudu kenn mbay te démb mu wax ci yu rëy rëy ñun ñii ñëpp toogoon ci réunion ba teewoon dégg nañ ko wax dëgg fa yàlla day ñëw euh, jour magal bu ñuy def journée seex fii nii ci HLM de Dakar day ñëw def fa teraanga yoo xamante ni wax dëgg fa yàlla buñ ko noppeete waxuñu ko rek day niru leneen wax dëgg fa yàlla day ñëw teral magu tarixa bi nekk Cees jox leen lu cher a cher a leen ko wax dëgg fa yàlla dañ koy sant bu baax gërëm ko ci kanamu mbooloo mi. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw ba nu sant yàlla julli ci sangu sang yi di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wa sallam ñu ngi nuyu ñep di ziar ñep di balu xaq ñep di ñaan suñu borom yalla ñu yalla boole ah di nuyu suñu xarit suñu mag suñu soppe di soppe sayid haji malik di soppe cheikh Abu bakkar si waye di soppe cheikh sayyid muhammadu mansour serigne mansour dafa am ben kër gu nekk ci tiwawan ci quartier kulindi di sa soppé ba benn bis moo dem voyage ñëw war a dugg ci biir kër gi fekk gardien bi génn tëj bunt bi ñu xool xool gardien bi gisuñu ko muy lu xew ñu ni ko ah, bunt kër gi lañ bëgg a tijji mais gardien bi dafa génn yóbbaale caabi ji mu ni leen déedéet matu ko Serigne Mansour wàcc ci oto bi ñëw ci bunt bi te kànnaar bi ni ko kànnaar man la mën Mansour mu sëriñ Serigne kër si bunt bi ubbeeku kon kooku ku ko sopp Euh, kuy def noonu bunt defe naa nit ku mu sopp du ma ta wax kon baabakar ñu ngi lay nuyu di la ziyaar di la jox sa wàccuwaay xam naa tey ñëw nañu fi waaye ñaari tànk lañ fi ñëwee bi ci jëkk mooy soppee xaaji Dudu Kend bi ci des sama diggante ak yow ndax bi may ñëw maani duma leen wax du la wax dara naa la defal surprise muy ku baax di ku bëgg Tiwaawoon di ku bëgg Cheikh Seydi Aboubacar si kon nag tabaarakallaahu teraanga bii boo ñu ko defalee ni yéen da ngeen di ñëw boo leen ñëwee man li ci war yëpp danaa ko def te tamit danañu ko jël fépp képp koo xam ne yaa ngi Cees wala ci àddina bi di nga yëg information bi kooku dañu la ciy sant di la ci gërëm di la wax ni nag defal nga ko ku ko jara defal muy alaaji duudu kenn mbay ndax bëri na fu tariixa na Cheikh yegg tey jii moom xaaji duudu kenn loxo ma ca biir kon bu dundee ba ñu koy sargal a ah, loolu tabaarakallahu rafet na ni bakkan ci xar kanam ah di la wax ni rek mbir bis baa ngi noonu ni ñu ci bokkee xam na ni nu ko raw ci ngay bokke ndax lii rek firndeel na ko kon sëñ Babacar xam naa pour bañ a guddal eh, di la xamal ni soppee xaaj yi du kenn yépp ñëw nañ lépp lu ñuy defit ci kilifteef lañ koy defee ñëw nañu ci ndigalu xalifa bi ñëw nañ ci ndigalu sëriñ Pam Malick si ñëw nañ ci ndigalu Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha bu sëñ Abdoul Aziz waaye ñëw nañ ci ndigalu Hadji Doudou Kende xam naa pour bañ a guddal loolu moo nekkoon kaddu gi di leen wax nag waa Thiès benaa bis bu ne xew na fi waaye ñu ngi leen di wax ni am ngeen bës bu rëy di la 18 incha allah ndax xam naa ni ñi sopp Doudou kenn yëpp daanu ñëw ci place de France bi ku ku yéex a ñëw nag mën naa ni mën nga bañ am place. kon 16 h inshallah allah jox nañ ñëpp mise en place wala 15 h sax kon seigne Babacar ah bis ba ngok di sa bis. di am mbekté le Serigne Cheikh daan wax naan sànni ben xeer jam ñaari picc tay lolu moñu dal te Serigne Cheikh day wax ni wanut xu wax bi xikami saniyati ci sagesse yu kawe yi mu ne laazimun lu war la. waaye nag illa maxal awsaabi nee na bu dee wax joo xamante ni rek amul njariñ nee na jarul wax te lii nag lu ñu war a wax la mu dem ba ca biir ni asumtu day noppi mu ne xukmun pouvoir la laa yu xarribu sultatan amul lu ko gën a kawe waaye fa bii ci no ci noppi te duumu ci ngay mën a amee bi siyaanati ci ñoŋ wala aqaaf ak fegu kon tey sunu ñëwee fii fekk fi Serigne Babacar yàlla def bëggul ku dul sëriñ Mouhamadul Mansour borom daara ji kon bu ñu waxul ci yow lu mbaax mu jaaxal ñu ñun daal liñ lay wax mooy ñi ngi fasante ak yow kóllëre li laa laasana wax dafa am solo mooy dëkkook nit ba pare tey rafetal loolu lu am solo la ni ko sëriñ Cheikh waxeet mooy boo doonoon boo doonul woon ki nga doon kon tey déplacement bi duñ ko def bay ñëw ci yow te bërki démb da nga wax lu am solo ci téléphone bi nii li tax ma leen ni recevoir altine maa ko xam kon ñu ngi ñaan yàlla ci barke altine ji sunu bis bi yàlla na ci yàlla wis ndox mu sedd ba lépp jaar yoon li ñuy woote rek mooy le 18 incha allahu rabbi fii ci place de France ñi ngi ñaan ñëpp teew fi ngir ñu sargal alxaj dut kenn mbay di la ñaanal gudd fan di la ñaanal wér am na loo xam te nag junj doy na boromum xel yal na yàlla doole jàmm doole sutura di wax ni daal bég nañ ci yow ndax baax daal mënul weesu baax te lii ku baax rek ko man kon yal na yàlla defal la jàmm dama naan yor nga sa jikkoy turandoo te ko sëriñ babacar si xam ni tarixa cheikh tey bu tollee fii fullaam ak xadaram tey moo ko may lii waaye ku la xool sa waxin sa kàddu xam ni ni mu sëñ Mouhamadul Mansour daan doxe muy aal muy mbégte sëñ Mansour boo ko gisee bu bégee rek da koy xem te yow tey mënoo bég ba raw ñu ndax Cheikh Ahmed Tidiane mii dañuy ñëw ci yoon bi mu ni gaaxat naa sax waaye dañoo jëm ci ku baax danoo jëm ci ku ma fonk danoo jëm ci sama wóllëre xat na lool mu ne lu ma xat-xat waaye ca ki ngeen jëm day sama wóllëre te sëñ Babacar si eh, li Pape la wax ni tey gémmiñ yëpp lot na ndaxte bégte boo am leer na mel ni ñi fi toog ñoo nu gën a bég te dang ñoo gën a liggéeyloo maanaam dang ñoo gën a sas bu doon benn la ñuy def dinañ yokk bu doon ñaarit la def dinañ ko gën a yokk ndax da nga wax ci alxaaj dut kenn léegi rek ni dut kenn ñëpp ko bëgg ba ci murit yi xaadim ngay bu dajeeg alxaaj dut kenn danaan ko man damay déglu say say way kon nga xam ni murit yi sax danoo sopp alxaaj dut kenn ndax baaxam ak bëgg sagu tarixa bi waaye yow it ku bëgg sagu tarixa bi nga parce que lii ku ko def rek xam nga ni yow ci njabootu kër Seex Sidi Xaaji Malik lu koy dox rek nga bëgg te yow mii ku loo xool xam ni sa jëmm ji luy doxal xadara kër Seex Sidi Xaaji nga bëgg kon ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na sa teraanga yokk lépp loo yaakaar ci sëriñ Mansour mii yàlla nga ci jot yàlla bu la ci dara rëj kontaan nan dem nan ci ku ne seeti nan ku ne waaye yow suñu mbégte ci yow weesu na fii kontaan nan ci yow di di sant laas ndax yaa baax mënta weesu yaa baax damaa toog ci alxaaj dut kenn mbay di ko gërëm du du ree ni ma am di bul bul bu ko gërëm laasa na bu ko gërëm dama lii ngeen taxawal ñoom ñoo ko bëggoon a njëkk waaye xadara bi dafa tëddee noo xam man dama ragal bëgguma lu fes waaye comme dem ngeen ba poñe ni da ngeen bëgg taxawul bii ndax bis bi dafa ñi ko bokk ñi ko séq moo bari du ñii rek am na ñoo xam te ñun ñoo leen bañ a déplacé ndax ñii ñi ngi dëkk ba Kaolack ñi ngi dëkk ba Joal ñii Fatick waaye comme ñii ñoo dëkk Tivaouane ñoo dëkk Thiès ñuy nan dajaloo rek ñun ñu ñëw seetsale waaye bëggoon ëpp ñi ci bokk ëpp na lii mais laas def ci liggéey boo xam te ni moo isa Euh, xanaa di leen ñaanal yàlla rek di leen ñaanal di wax ni yàlla na yàlla defal jàmm bis bi ndam liñ ci séntu yàlla nañ ko am ci barke Serigne Babacar sa turandoo sëñ Babacar di wax ni kontaan nan kontaan nan ba fu kontaan wees te incha allah ni ñu terale lii ak ni ñu recevoir nii euh, alxaaj dut kenn bay dina ko yëg ndax ku la defal teraanga nag danga koy wax bi nuy ñëw moo nu indi dafa ni Cheikh Tidiane dama leen yóbbu ba ca kër ga Cheikh mi moo ne ko déedéet insisté seex ni ko déedéet mu ne ko kon kaay ma jox leen paas seex ni ko déedéet daal di daw man demoon naa bay jël xaalis ba sax kii di ma ree <laughs> xam nga kon nga xam ni ah, dudu ñëw bi ñuy ñëw fii ndigal la te fi ñuy ñëw xam na ko te xam nañ ci ndigal la ñuy dem kon lépp loo xamante ni rek euh, wax nan ko fi dina ci jot teraanga ji ñi defale dina ko yëg di la ñaanal yàlla na yàlla guddal sa fan ci barke Serigne Babacar Sy hani an lana min ushafaatu fi adi yonnen yanaalu rida kullu abdin muwahidin ala atain fi dhanbin aw an tammudi jarairuna tumha bijayi muhammadi ida shufica almahbubu jada almubarajo jara إذا شفع المحبوب بجاز المباح جرائرنا sabi wondi laa ولا تبعيا tabciya عن عيفي متحولا فكرم بي معنا تحرع منزلا أحق عباد الله بالمجد والهلا نبي الأول على الإنان مبوأ tumxaa yokk sopp yonent bi Muhammad lana kulla amrin rabbi min karamin yaa xam na ngay def sa jaam yaa jàppundal jafe ya yesir lana kulla amrin rabbi min karamin yaa xam na ngay def sa jaam yaa jàppundal jafe ya tubna ilayka ilahina adibina bima jëfef na ko temm moy bànneex ya ak ndigal ya nul ji ilayka du uran ya dayru lana noy to sendem nangu wo yow mi kenn u kenn wa anta zo rahmatin wa rafatin karaman sa yermande jiitu say mer yay lambog mbugal ya ajjil igasata man yashku no durwawumo ñuy jooy jibat ak ci xol ngay seede seen melo ya بجاي قير ورا المحتار من مضارين مي كركران جمتيو تشنيني عجن والمن حمنا الى رحمتان لو مصبب عمل قاك تبو يفستي وهو الشفيع لنا في تي جيجو كرمم قدي لابل بريا أكبتي بحرمة شيخ قطب العارفين معا موديب ستم تيدنوم اسكي برم كوي شيخ الشيوقي أبي العباس xaasimal jeyna kuy weeru day seeti gannaaw borom de wa aashe shaabu bil jaddi nabi sharafan àndaale kuy géeju baawaan penku ak sowe rabbi bi asmaikal xusna tawassuluna ak barke tànneef ba ak barkeb sëtëm sëriñ ya salla ala afdalil akwaani ajmayin bur yàlla mooy bindi jaam tey def ci moom ngëneel ya suma alal alim al asqaabi qaatibatan mooy jënti njolloore ñi di bidu kër jubal ya allahumma ya man azhara al jamila wa satara al abiqa wa lam yaaxis bil jarira wa lam yahtiki sitra wa ya azima al afwi wa ya xasana al tajawuzi ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سميع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقل العشرات ويا مبتدئا بالنم قبل استنقائها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا خير رفتي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا خير رهبتي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا خير رهبتي أسألك أن لا تسبه قلقتي ببلاء الدنيا ولا بأذاب النار فمن علينا إلى العرش قالقنا بسقبة خد في دنيا أخرى لذاك توصلنا إليك بكل ما اتك السما محتله بزوريا بركه مركه بركه مدينه بركه فاس بركه تيوان بركه سيد الحاج مالك بركه شيخ الخليفه فاتح الصلاه الفاتحه يلا يلا نقول نعم. امين امين